بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noongi sant sunu boroom subhaanahu wa taala di ñaan jàmm yàlla ak xéewalam ak muccam ak yërmandeem ak njéggalam borom bi sotti ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay saxaabaam di ko ñaan mu defal ñu tawfiq ci àddina ak ci àllaaxira incha allah bind yi nga xam dañ ko doon def ginnaaw tàkkusaan mu taxawoon ab diir ngir ay sabab dañu amoon yéene tàmbaliwaat ko mu continuer mel nam doon mel bindab tey bi dañu koy def ab fàttalib tàmbali waaye mu jëm ci zikr muy di tudd yàlla subhanahu wa ta'ala xëy na bisab altine am na leen lu doon am ndax ñu ngi ci doon am luga bisab talaata di suba ñu ngi ci doon am téere buy jàngale wàllu zikr zikr ci boppam buñ ko waxee mooy fàttaliku yàlla ak di ko tudd ñaari yëf nag moo tax ma tànn bind bi def ko ci wàllu zikr kon ñaari yëf moo tax ma tànn wax ci wàllu zikr benn bi mooy bis bu mel ni suba di talaata ñu ngi ci war a am téere boobu di jàngale zikr ñaareel bi mooy dama seetlu ni noon bi ñu gën a rëyle muy seytaan arme bi ñu gën a garaawle pour dóor ko ko mooy zikr ak di tudd yàlla loolu ñi ko xam ñoom xam nañ ko waaye ñi ko réere ñoo ko réere ma seetluwaat ni jamono bi ñu toll seytaane fi mu nekk nii doomi tubaab la def jullit yi di leen foye te ñoo ngeeg lu rëy loo xam ni seytaane noonu la ko ragalee noonu la koy dawee muy zikr ak di tudd yàlla ma seetluwaat ni yàqu-yàqu xol yi fi mu ne dafa bari torop te li ma yëg loolu ngeen di yëg loolu la seeni morom di yëg te zikr ci médicament yi gën a gaaw ci defar yàqu-yàqu xol yi ca la bokk ma seetluwaat ni yiw yu rëy a rëy rëy yoo xam ni kenn xamut nu mu toll ci amum tiyaaba ci montagne tiyaaba yàlla da koo digge ci zikr ba noppi te ñun ñi ngi bari ay bàkkaar néew lew yiw te fonkuñ zikr ma seetluwaat ni jamono bi ñu toll eh dama nga jëlee ñële ko dañoo toll ci jeexu jamono yàqute bari bët jàpp nit dafa gaaw torop làmmoñ jàpp nit gaaw lool njabar jàpp nit gaaw lool te ñett yi yëpp zikr da ci dimbali doomu aadama ba du ko jàpp wala bu ko jàppee du am doole ci moom ma seetluwaat ni tey boo seetloo jikko yi rafet ñun yombunu li ko waral mooy xol mooy encaissé pour togg ay jikko ba mu rafet te xol su borom du zikr xol du baax te xol bu baaxut du mën a encaissé ba togg ay jikko yu rafet foo fekk ku ëpp lu muy zikr moo la gën a dal xol moo la gën a féex moo la gën a jege yàlla moo la gën a dund ak dal foo fekk ku la gën a tàng xol gën laa naqari deret gën laa tëlee muñ du jéggale du bale tey ñaaw njort foo ko fekk rek da ngay fekk ni borom xol bu feebar la te képp kuy zikr sa xol du feebar yii daal ak yi ma mën a tudd biñ dajee ma gis ni kon dana am solo lool bind bu mel ni bi ñu war a am suba te balaa may jeexal dinaa leeral dars yi nu muy demee incha allah ñu xamee ci ni kon zikr lii mooy njariñ yàlla day daf ñu wax ci alquran benn aaya ju am solo mooy alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub ñi gëm yàlla te foo leen fekk ñi ngi amuk dal bu àddina bi day rëf-rëfi ñoom boo xoolee seen xar kanam leer nga cay gis ñoom sax da nga leen di ñee da nga naan waaw ñii xanaa amuñ benn problème fekk onkay am na ñuy problème waaye zikr moo tax problème yi du manifesté wu sunu borom mu ni seen xol yi dafay dal dafay teey ci tudd gi ñuy tudd yàlla mu ni dama ni bu yeboo ngeen xam ni dal dëgg dëgg dëgg dëgg ci tudd yàlla la nekk saabu bi nga xam ni moo mën a fóot xol ba xol bi sell ci yàlla mooy zikr dënn yi bombeewuñ ko setaleewuñ ko lu gën a rëy di zikr ak di tudd yàlla xaw tuuti kon nga wax la borom xam-xam ba waxoon nee na tudd yàlla day mooy àjjanay yàlla ci kaw suuf te ku mënta dugg ci àjjanay yàlla ji ci kaw suuf moom na nga yëg ni àjjana ju mag jodoo ci dugg xoolal wax jooju ni mu amee solo ak ni mu fasoo tudd yàlla day mooy àjjana yàlla ci kaw suuf ku mënta mos ci àjjana yàlla ji doo mos ci àjjana jële day xitili xol ci jàngoroy àddina ak rëf-rëfeek dal ak am ay problème waaye doomu aadama su ko yàlla baaxee mu nekk ab zikirkat dafay féex foo ko mën a fekk niiri njàqare ak tiis ak i problème yi nekk ci xol zikr moo koy dàq am problème am ay jafe-jafe am ay tiis am ay feebar am ay njàqare am yooy xalaat wala ngay tiit guddi wala lu mën a doon ci xeeti jafe-jafe yi gaar doomu aadama niir woo bu yegg see yëgal ni zikr da koy dàq moo tax lii moo waral nga gis ay nit nga dëkk ak ñoom bu dee ay moyens yaa leen ko ëpp bu dee ay jumtukaay àddina yaa leen ko ëppale waaye boo seetloo ñoo la gën a dal ba léeg-léeg yow sa problème mooy waaw kii man li may togg moo dàq li muy togg li may naan moo dàq li muy naan li muy lekk moo tax moo dàq li muy lekk waaye seetlu naa ni moom foo ko gisee rek da ngay sentir dafa kontaan te li may xam ngeen yéen ñëpp xam ngeen am na genre nit yoo xam ne foo leen gis rek da ngay mel dañuy kontaan. fekk effectivement travail bi xol bi doon def ci zikr bi moom moo feeñ ci cër yi moo tax ki dul tudd yàlla na yëg ni ab néew la buy dox mooy ka yàlla yi juñu na amwaatun gayru ahya ñii de dee nañ fi ne dundatuñ wa ma yash'uruuna ayyaana yubaathuun ca suuratu naxli loolu yàlla ma ngi koy wax ci ñi dul tudd yàlla ñi nga xam ne ñoom duñ faral di zikr yàlla bi mu leen di xas dani ñii de dee nañ ba noppi dañuy dox rek waaye dee nañ bu yà ba yàgg kon ki nga xam ne bu tëddee day faral di tiit ki am ay problème yoo xam ne léeg-léeg mu jooyloo ko ki jafe-jafe àddina ganes ki feebar gaar ki naqari àddina tàbbi ci biir xolam na yëg ni tuddul aw tur wu gën a foor te gën a mën a yëkkati njàqare yooyu ci turu borom bi subhanahu wa taala kemtalaay nit ki nag nu mu baree lu muy zikr di tudd yàlla kemtalaay ak noog xolam di gën a yaaweekoo ci mbaax kemtalaayam nu bakkanam di gën a teddee wéeru gi muy wéeru ci yàlla di gën a wóor rafet njot gi muy rafet njot ci yàlla di gën a wëy waaye su wooyee yàlla subhanahu wa taala yàlla daal di koy wuyu teyit nag yàlla daf koy jéggal ay bàkkaaram te it yàlla day yéwénal ay mbiram lum laal rek day mel ni yàlla da koy barkeel musiba ju nar a tàbbis ci kawam ci seytaaney nit wala seytaaney jinne la bàyyi ko yàlla daf ko koy fegal waaye yàlla daf koy defal ak leer goo xam ni akuk texe yow mi dëkk ak moom te di ko gis sax da nga koy xam moom la yàlla junju naan fa aataahum llahu sawaaba dunya wa xusna sawaabil axira ñoom sax yàlla da leen a teel a fay fii ci àddina moom yool bi leen yàlla xaare alaxira sunu borom mu ni yàlla nee na am na lu ma leen ci jox fii ci àddina ku leen gis xam ko waaye ak la leen di xaar ci àllaaxira mu nekk lu rëy a rëy rëy yàlla na borom bi subhaanahu wa taala defal na ko zikr nag su ma ko waxee mooy tudd yàlla tudd yàlla nag jubluwuma ci comme ni ko ñenn allah allah allah allah loolu tudd yàlla de déedéet tudd yàlla ak jaamu yàlla la yàlla bi mu bëggee ku ko jaamu nan la def hmm yéen laay laaj suñu borom bi mu bëggee ñu jaamu ko nu mu def ah dafa sàkk am mbindeef mu koy jaamu bi yàlla bëggee mbindeef mooma jaamoo ko nii nu mu def dafa yabal ab yonent ni waajaa ngi wa in tutiuhu bu ngeen ko toppee moom kii kii wa in tutiuhu bu ngeen ko toppee tëhtadu di ngeen gindeeku yonent bi wa ma aataakum rasul lu mu leen jox fa xuduuhu jël leen ko wa ma nahaakum anhu lu mu leen tere fantahu bàyyi leen ko gis nga de laqad kaana lakum am ngeen fi rasulillahi ci yonent yàlla bi uswatun xasana royukaay bu rafet liman kaana yarju llah wal yawm al axir ku ragal yàlla gis nga kon yii ay aaya da lay wan ni yonent bi lañ war a topp ci lépp zikr ak jaamu yàlla la kon nit ki sañ ka créer ab zikr wala bàyyi diw ak bàyyi diw créer ko mu di ko def waaye day bàyyi ba yàlla akub yonent bi yoonal nu ñuy zikree mu di ko def kon yëgal yi tudd yàlla tuddkati yàlla yëpp ku ci tudd yàlla te la ngay def ab nit a ko keree wala amul cosaan ci sunna yaa ngi perte sa temps bu doon gaz walla yaa ngi koy naawal di ko yàq bu doon essence mi ngi deex ci zéro bu dee coono la mi ngi dem ci maali foro waaye du la amal benn njariñ xaw ma ndax masala moom leer na wala déet kon su boobaa nu ñuy def ni ñuy def mooy kenn ku nekk ci ñun ginnaaw bu mu dégloo ba xam ni zikr lu foor la la des mooy waaw lu ñuy zikr aha lu ñuy zikr ñu wax la ko nga ni waaw nuñ koy zikree soo nee ma lu ñuy zikr dama naan la mooy njàngale yi tax bind bi am am nañ téere bu ñuy jàng incha allah bu daas bi jeex dinaa ko leeral kon loolu la ñuy zikr soo xëyee da nga war a def lii bu ngoonee nga def lee guddi booy tëdd da ngay def lii boo gisee lu demee ni nga def lii booy dugg ci wan ak def lee loolu mooy zikr ak yoo xam dara du xew yaa jékki-jékki di ko wax salaam kon loolu la ñuy zikr nga ne ma nuñ koy defee ma ne la daa am yu am heure am yu amul heure gis nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen façon yu bari nit ñaa ngi koy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mbokk yi ñun am nañ ay xel yàlla dani inna allaha yàlla wa malaikatahu akob yonenteem yusalluuna ala nabi ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi julli leen ci moom wa sallimu tasliman léegi xoolal mbokk yi jaamu yàlla goo xam ni yàlla bi mu ko diglee moom moo ko njëkke akuk malaaka aki malaakaam julli leen ci yonent bi yàlla ak malaakaam yi sax ñi ngi koy def kon nag jàpp naa ni loolu da lay wan ni kon julli ci yonent bi lu foor la ama na incha allah darsa suba bi dinañ ko def ci njariñ yi nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yàlla ne julli leen ci yonent bi bii waaye ndax naka da ngeen yaakaar saxaaba yi kii daa dem jël salaatu nangam kii dem jëlaat salaatu nangam comme ni ngeen ko déggee kii dem jël salaatu lii kii dem jël salaatu lee déedéet saxaaba yi dañu ñëw ci yonent bi ni ko ah ñun de xam nañ nuñ lay nuyoo nuñ lay nuyoo mooy assalaamu alayka ya rasulallah waaye nu ñuy jullee ci yow xamuñu ko kon gis nga lu waay comprendre comprendre saxaaba yàlla gën a comprendre waaye dañoo ñëw ci yonent bi ni ko nu ñuy jullee ci yow yonent bi daal di jàngale nan la ñuy jullee ci moom kon bépp julli gu waay julli ci yonent bi te boo ko toppee yonent bi jàngalewu ko sa temps yaa ngi koy yàq sa énergie yaa ngi koy perte te it maali foro la lay jural doo ci am benn tiyaaba zikr ba ca gën nag mbokk yi mooy zikr boo xam ni xol bi ak làmmeñ bi dañuy ànd waa joo xam ne mi ngi zikr mu ngi naan zikr subhanallah subhanallah subhanallah lu lu lu gees mu xool lu ñuy wax mu reetaan ca léeg-léeg sax day juum ci li muy def zikr boobu amul benn njariñ borom inna allaha la yaqbalu duaan min qalbin ghafilin la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla du nangu ñaan wala zikr boo xam ni borom xol borom xol ba teewut laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha da ngay dem ba léegi li ngay wax sax xamatoo ko fa fi yow amul benn njariñ amul benn sens amul benn sens gis nga zikr bu am sens dëgg wallahi boo koy def soo paree da ngay kontaan maanaam da ngay yëg plaisir ci sa xol bi doo xam lu ko ci def nag astaghfirullah astaghfirullah fekk jamono bi ngay astaghfirullah yaa ngi xalaat sa bàkkaar yi nga def ak ni mu toll yaa ngi tuub am na yoo xam ne tuuboo ko am na yoo xam ne xamoo ko est ce que yi ngay tuub yàlla baal na la ko wala baalu la ko yooyu nga di ci xalaat ak boo ko yóbboon àllaaxira problème yi mu la mën a andil subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar sell ñeel na yàlla cant ñeel na yàlla yàlla de mooy ku màgg ki jamono jooju ngay xalaat màggaay yàlla kawewaayam gis nga mi ngi noonu yu demee noonu kon yooyu zikr bi ci gën borom xam-xam yi dañuy wax ni mooy zikr boo xam ni xol ak làmmañ ñoom ñaar ñooy ànd di jàppalante pour zikr yi mën a génn ginnaaw bu ma la waxee ni zikr kon mooy lii mooy xeeti tudd yàlla yi nga xam ni ay jaamu yàlla la yoo xam ne yonent bee ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam yii ñu koy def suba yii ñu koy def ngoon yii ñu koy def boo tëddee yii ñu koy def boo yeewu yii ñu koy def booy dem marché booy dugg wanag booy sol yére boo amee lu bees boo amee ku faatu boo amee koy jaale ci gàttal lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek am na lu fa yonent bi jàngale yooya soo ko boole yëpp moo tudd zikr mu jeex loolooy zikr nan lañ koy defee ma ne la bu nekk am na heure am loolu nag dees ko wax ci benn dars moo tax dars bi jóg gis nga léegi nag moom ay quelque njàngale yoo xamante ni bu ñu ko xamee rek daf ñuy gën a soññaat bi ci njëkk mooy ndekete noon bii ñu am muy seytaane di iblis ku soof ki ku bon ki ku yées ki ku mën a yàq ki ndeke arme yin koy dóor yi misil yi gën a tàng ci moom bokk na ci mooy zikr yi ñuy def gis nga yooyu boo ci amee quelque rek da ngay xam ni ndekete wallahi jaamu yàlla yii ñu yàlla defal xéewal la yu rëy rëy rëy rëy ci ñun ñun ñoo ko yëgut am na ay misil ay bomb yoo xam ni gis nga misil ak bomb boo ko sànnee ni muy def ñañ ko sànni yëgal ni zikr yii ma lay wax noonu lay def seytaane te xool yaa ngi dàq sab noonu yaa ngi cay amaale tiyaaba maanaam daal ci gàttal yaa ngi bilandewu yow yaa ngi bilande sa bopp yow gilet yi nga xam dañ ko blende ba boo ko soloon tey ku la dóor bal du dugg dafa mel ne zikr bi noonu laa ko mën a misaale pour mu leer te wax xaqan sax moo ko raw nag bokk na ci yooya mooy di bari looy muslu ci seytaan audu billahi min alsheytan arrajim wala audu billahi alsamii alalimi min alsheytan arrajim wala audu billahi من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه loolu mooy maa ngi laqatu audu maa ngi muslu di laqatu di wéeru di di jox sama mbir yëpp billahi ci yàlla min ashaytaani ci shaytaane mu bon mi arrajim mi nga xam ne yàlla da koo dàq ci yërmandeem gis nga nit koo xam ni seytaane da koo jàpp nga di nga di ko dimbali di ko moccal ci misaal nga sellu xol nag dogu nga tiim ko di wax baat boobu kese kese loolu rek mën na koo mocc audu billahi min alshaytan arrajim audu billahi min kese kese mën na koo mocc xaw ma li ma wax ndax mi ngi leer wala déet kese laa wax kese mën na koo mocc lu ko waral mooy waaye nag yëgal ni jaasi jaasi ñaw kaba nekkul ci jaasi ji waaye mi ngi ne ci ki koy dóor gis nga nit bu yambaree mën nañ ko jox jaasi bu ñaw mu xaaj ci dóor te bant bi du dagg jaasi ji ñaw na wala ñawul ñaw na kay lu tax daggul parce que yow miy dóor yaa faible jaasi mën naa bañ a ñaw nga jox ko ponkal mu dóor mu dagg moo ne jaasi ji ñawul de lu tax mu dagg mooy force bi mu àndal kon ndeke zikr mi ngi def jeexintal ci waa ji force bi mu àndal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يبسخنا يعلمني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ fastaid billah saa bu la seytaan naree këf ak fëkk rek musulul ci yàlla ci seytaane yàlla moom mi nga xam ne mooy kuy dégg ki mooy ku gis ki gis nga seytaane saa boo laqatoo ci yàlla rek mu daw benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Wahb ibni Munabbi da doon jàngale ba mu yàgg mu ni waaw ku doon dem ba dox ba mu yàgg nga romb benn buntu tool xaj bi ni mbaw mbaw rek daw bëgg laa song nooy def kenn ci ndongo yi muy xanaa damay for xeer rek dóor ci bopp bi mu ne ko nga for xeer dóor ci bopp mu moytandi ko rek dawaat songaat la nooy def mu ni ma foraat xeer rek dóoraat mu ne ko nga dóor mu mooy mooyaat ñëwaat songaat la nooy def mu ne ko xanaa ma fa mu ne ko sa waay sa forobu xeer yaa ngi bëgg a bari mu ne ko kon nan laay def mu ne ko tee ngaa daw nga làqatu ci ginnaaw borom tool bi ndax moom bu nee xaj bi us xaj bi daw gis ngeen misaal moom te walillahi almasalul aala mu joxe ko leeral ngeen nit ñi xam ni balaa ngay sonn demal làqatu ci yàlla mi moom seytaane mu musal la ci xaj bu gën boobu ñaareelu njàngale yi nga xam ni zikr da koy jariñ te nga mën cee mucc ci seytaan mooy qul huwa qul audu bi rabbil falaq ak qul audu bi rabbin naas xoolal ñaari saar yi niñ leen di foyee ndax dañoo gàttee yaay yaay ndax ñoom la ñuy njëkk a jàngee ndax dañ leen a miinee ndax bañ leen a mokkaleeg léegi daa yàggee yooyu yooyu mooy tax ñu di leen foye doomu aadama en général njariñam da koy foye gis nga ñaari saar yi bi ñu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mboole muslu yim daan muslu avant ñaari saar yi xam nga avant saar yi di wàcc am na lu yonent bi doon muslu waaye borom xam dañuy wax ni ba mu wàccee dañuy ah yooyu yëpp dama nees na kaa bàyyi bii moom moo gën a foor yëpp beneen riwaaya boo xamante ni imam Abu Dawud génne na ko mu ni maa taawada mutaawidun bi mithlihima muslukat kuy muslu laqatuwut ci lu gën a rëy ñaari saar yi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam saa bu daan tëdd da ko daan jàng comme ni mu ko digalee Uqbata ibni Amir xam ngeen wér na ci sunna te jot ngeen koo jàng ci téere bi ñuy may wax nii mooy nit ki buy tëdd day def nii jàng qul audu bi rabbil falaq qul audu bi rabbin naas ak qul wallahu ahad ñetti yoon mu def ko ni ëf raay ci yaramam ba ci suuf def ko ba muy ñetti yoon gis nga ñaareel bi mooy saa boo jullee ba noppi nga jàng ko bu dee suba nga def ko ñetti yoon bu dee ngoon nga def ko ñetti yoon tamit ñetteelu làqatukaay bi ci wan la njariñu zikr ba léegi mooy jàng ayatul kursi yi ayatul kursi yi moom su doon ci làkk wolof bi ngeen di wax mooy daj dëpp gi daj dëpp koo xamante ni moom daanaka moom bu amee lenn lu la jaaxal rek dawal jëli aaya jooju benn bis bi aaya ji wàccee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa woo saxaaba yi ne leen waaw ban aaya moo gën a màgg ci alquran saxaaba yi ni tekk mu xool gis ubay ibn kaab xam nga nit buy waaj a tontu geste yi muy def yonent bi ni ko waxal waay waxal waay muy nakk nakkal yonent bi waxal rek waxal rek mu daal ne ah xanaa ayatul kursi yonent bi daal di jóg daal di fëgg dënn bi ni ko yow day xam-xam mi ngi lay ndokkeel ça veut dire que mi ngi war ne yow am nga xam-xam loolu muy ubay ibni kaab nga xam bokkoon na ci ñi mokkaloon alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayatul kursi yi jàpp naa ne buñ taxawoon pour di wax ay njariñam moom liñ nar a wax lépp dana fomm duñ fi jóge da seytaane da koo ragala ragala ragal ba nga xam ni am na xadis boo xam ni mi ngi ci Bukhari Muhammad ibn Sirin mu jëlee ci Abi Hurayra mu ni yonent bi daf maa dénkoon dambay tàndarma yiñ doon de saraxe tàndarma ay dambay tàndarma mu dem denc ko ci ginnaaw këram mu ni su ma yeewoo damay ñëw fekk affaire bi ñu sàcc affaire bi jaaxal ma te man sama kër sama waa kër duñ sàcc nee na ma ne baax na xaar dinaa yeeru ki koy def nee na guddi jot maam fu ma làqatu jékki-jékki seen benn affaire bu mel ni nit waaye forme muus la yore di yoot pour jëm ci affaire ba ma it ma yoot ni ko nip bi ma ko jàppee ma ni ko sum waay yow ah yow yaay sàcc suñ tàndarma ji xaw ma lan nga waaye nañ dem ci yonent bi laa la jëmee moom dana régler mbir mi waa ji di ko sarx di ko sarx di ko sarx ba aboogu reer yërmande ji mu bakko boo lëgee ba nga dellu siwaat mu bàyyi ko mu dem Abu Hurayra ñëw daal ni ay yonente bi de man jàpp naa sama waajo nekkete benn affaire daal bu mel nangam ak nangam moo doon sàcc sama kii bi ba yeegi yonente bi waxu ko lan la de yonente bi ni ko anam mu ni ko bàyyi naa ko mu ni da lay fen dina ñëwaat de mu ni ko nee na dootul ñëw ne ko dina ñëwaat Abu Hurayra nee na ca ëllëg sama toogaat di ko yeeru ma jege-jege rek seen ko muy yoot ma it ma yootate ni ko niip ni ko yow ah lii nga ma waxoon démb yow ca yonent bi laa la jëm nee na mu sarku sarku yu gën a garaaw yim defoon démb ma it ma yërëm ko rek bàyyi ko mu dem nee na bi mu ñëwee nettali ko yonent bi yonent bi daal di muuñ daal ni ko wax naa dina dellusiwaat kàccikat la waaye ci ñetteel bi yoon ba Abi Hurayra mu ni tey moom du ma wax nu ma koy def xaar ba mu ñëw bi ñetteelu yoon ba ñëwee mu yegg si Abu Hurayra ni ko niib ni ko tey moom dama la dul déglu sax nag moom tey moom loo ma mënti wax du ma la déglu ci yonent bi rek mu ni ko tey nag di nga ma déglu ndax tey ma wax la lu ma la mës ta wax tey ma wax la loo xam ni soo ko jàngee seytaane du la jege guddi ba fajar jot xam nga tey bu doon Abu Hurayra keneen la du du wàcc ci décision danaa nañ ko yóbbu ci yonent bi waaye lii dalay wan ñoom niñ bëggee woon xam-xam maanaam wàcc na ay principe am xaar ngir liñ ko dig xam-xam kaay ma wax la loo xam ni soo ko defee seytaane da ngay muccoom guddi gi yëpp mu ni ko lan la mu ni ko ayatul kursi bi ngi bii bii Abi Hurayra nee na ma bàyyi ko mu dem ma ñëw ci yonent bi ni ko ana sa waaja mu ni ko sama waaja bi mu ñëwee wax wax nettali ni ba àggal yonent bi ni ko lum la wax mu ni ko daf maa wax ni am na loo xam ni soo ko dee jàng saytaane du la jege guddi gi ba fajar jot yonent bi ni ko kàcc kat la de waaye bii moom wax na dëgg ndeke fenkat dina wax dëgg léeg-léeg di fenkat du lu mu wax fen la de loolu moo lay wan ni fenkat it bu waxee lu luy dëgg ñoo xam ne dëgg la mën nañ koo jël kon mu ni ko sadaqaka wax na dëgg wa huwa kadhub waaye fenkat la Abu Hurayra xam nga ki la wax loolu kum doon mu ni ko man kay xawma ko moom daal muusuma laa ci xam mu ni ko kooku mooy seytaane seytaane moo doon def jëf jooju kon gis ngeen ayatul kursi mbokk yi ni mu foore gis nga booy tëdd nga jàng wala ngoon jot nga jàng ba fajar jot mooy sa belende moo la belende suba nga jàng ko ba bis bi dellu si ba su ba guddi gi ñëw moo la belende gis ngeen nettali bi firnde la buy wane ne seytaane day sàcc fan yi paase maa ngi def benn dars bu ma doon jàngale maa ngi koy nettali gis ngeen seytaane ci ni muy sàcc saay saayee xam nga nu muy def ñaari wujj dañuy nekk ci kër di sëy xam nga kër yi gis ngeen ko ni mu mel rek kenn ku ci nekk di wujjeeg sa morom mel ni xaj ak muus léegi iblis bu leen bëggee jaxase ni muy def mooy da ngay jël sa or wala sa xaalis wala sa lenn nga teg ko benn barab gis nga boo ko dencee te waxoo bismillah wala doo def sa yaskaar seytaane mën na ñëw coppite ko surtout or mbaa xaalis nag léegi yéen a daje léegi ci biir néeg bi di ndékki wóolu nga ki nga nekkal moo tax bi ngay tijji batan bi denc or bi mi ngi lay gis parce que làqu ko sa dara nga dem marché ñëw rek fekk ñu sàcc or bi koo koy ji moom nga koy jiñ fekk iblis moo ko def gis nga or bi dayu ko daara daa dara taxu koo jóg xam nga lu ko tax a jóg mooy yéen ñaar na ngeen fénkoo moo tax lu ma tabaay xel ngoo suñu denc yi nañ ciy góorgóorlu saa booy denc waxal bismillah wallahi bari na yoo xamante ni tuumaal nga ci nit fekk seytaane moo ko sàcc seytaane moo ko sàcc fan yii passé am nañ ci benn cas boo xam ni subhanallah ki seytaane jàpp ci kër gi xam nga lu ko seytaane digal photom la jël moom ku jigéen ki jël photom kuppati ko kuppati ko mooy ni ngeen di kuppatee photo rek ba mu jël jëmm ji net mu bind ci ay affaire turam ay xaatim ay nangam dem ci benn barab suul ko fa ca kër ga fekk moom moo ko def seytaane moo ko ko digal léegi ñu jéñ ko wujj yaayam li may wax nii fii laa amee fii Mbambilor fii te seen waa kër yi ñoom xamuñ ci dara jour bi ndaw si daanoo ñu ne fa di mocc ak di def ay affaire ci la mbir boobu feeñ gis nga seytaane léeg-léeg mën naa defloo nit ki te nit ki du yëg sax lu xew fekk seytaane mën na la defal nangam ak nangam gis nga léeg-léeg seytaane moomu am na ñoo xamante ni kaa yin ci am da ngay gis léeg-léeg seytaane mën naa ñëw róofu kenn ci kër gi ci misaal ñaari wujju di sëy seytaane ñëw dugg doomu kenn ki muy yuuxu naan soow mi nga mi jox démb yaa ngi may rey yaa ngi dagg sama butit yi yaa ngi nangam fekk wallaay du dara xam nga lan la loolu ci la olof yi jëlee baatam dëmm léegi su ko defee ñu fàttali ko ne ah biig de wax nga dëgg de bi ñu reeree ba pare diw mi doon na séddaleem soow te jox la ko kaas sa soow maa ngi dagg sama butit fekk seytaane mooy wax ci làmmiñu ndaw si su ko defee léegi kee bu teeyul moom day jàpp ni maanaam léegi seytaane ci boppam moom moom moom moom kee bu teewul day jàpp ne maanaam liñ doon jiiñ kii kon dëmm la kon nangam nangam ila axirihi gis nga bala nga ci woon a xam dara kooka boo tiimoon ci nopp bi nga jàng ci alquran rawatina ayatul kursi wallahi boo ko pesee loolu mu doon wax dana ko bàyyi du ko waxaat seytaane mooy def loolu gis nga yii am nañ ci kaa yu baree baree bari yoo xam ne nekkul yu nuy jàng waaye yu nuy gis la yooyu nag nit na ci teey na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax gis nga pour mu def ay pexe ba jaxaseeg la ak nit léegi nag booy jàng alquran rawatina aaya bi seytaan du la jege bokk na ci ja laqatukaay yooyu mooy suratul baqara nag moom yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kër gu ñuy jàng suratul baqara seytaane du fa teg tànk nee na bu leen jël seen kër yi def ko ay armel yonent yàlla nee na bu leen jël seen kër yi di ko def ay armel kër gu ñuy jàng suratul baqara seytaane du fa mën a dugg mi ngi mel ni benn waay boo xamante ni dafa miine kër gi wërale kër gi miin xam nga fooy jaar ba dugg booy jaar ci miin miin miin nga day tëb ci sa kaw soo jàngee suratul baqara sa kër moo tax borom xam dañuy wax ni lu waa kër sàggan sàggan sàggan ñetti fan yu nekk war nañoo jàng suratul baqara suñu kër yi ñun gan kër lañ koy jàng ñetti fan yu nekk gan kër gan kër kër ga nga gën a yaakaaree suna duñ ko def faf tey te normalement ñetti fan yu nekk war nañ jàng suratul baqara ci kër yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñaari aay yi mujj ci suratul baqara te loolu bokk na ci tamit nee na ku ko jàng ci guddi gi nee na doy na la aar na la ba suba jot te hadis boobu buxaari ak muslim génn nañ ko bokk na ci zikr yi laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na baat yii ku ko wax ci bis bi téeméeri yoon mel na ni goreel nga fukki jaam allahu akbar fukki jaam ñu bindal la téeméeri tiyaaba effacé la téeméeri bàkkaar takkal takkal la ay yëf yu lay bilende ci seytaane ba bis bi ba ngoon jot ku xëy ku gontu nga def ko comme fi ne nii may wax ak yéen nii ku ko def da ngay mel ni ku goreel fukki jaam ñu bindal la téeméeri tiyaaba fompal la téeméeri bàkkaar musal la ci seytaane ba kañ ba kañ ba subawaat kon soo ko defee téeméer suba kon gis nga rot na téeméer suba téeméer ngoon te seetlu bi ma ci def man seetlu bi ma ci def sukkandiku ci sama bopp ci laa sukkandiku ni kon ñi koy def bariwul maanaam zikri dama seetlu ni booy def boobu moo ci xaw a gën a gudd tuuti xam nga subhanallah subhanallah subhanallah gàtt na alhamdulilah alhamdulilah allahu akbar subhanallah wa hamdi waaye laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu gis nga zikr bi seetlu leen li ma leen wax ku nekk rek na wax digganteem ak yàlla mu seetlu boo ko def bu yàggee balaa pare sax boo amul sax da ngay toog xam nga lu tax nga toog mooy ñàkk koo miin moo tax ci laa sukkandiku ma ni kon mbaa du lii kon dana seytaan ci lay jaar te li gën a kéemtaane du loolu nag mooy gis nga boo koy def boo amul sens bala ngaa pare nga nelaw waaw wala déet zikirkat yi xam nañ loolu ku ku waxul waaw rek mooy da nga dul zikir rek ku waxul waaw rek mooy doo zikir waaye gis nga affaire boo koy def gis nga seytaane da cee laxasu laxasu goo xam ne fi ne boo ko commencé woon nii ah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa alhamdu ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu yow xaw da ngay def 10 minutes ndeke defagoo dara 10 minutes day passé defagoo dara gis nga boo amul sens seytaane da lay nelawloo da ngay gëmmentu bu ko defee du àgg moo tax nit ki war cee bàyyi xel baax a baax a baax bokk na ci zikri yi nga xamante ni am na njariñ lool mooy wala mbir yi nga xam ne daf lay dimbale ci seytaane te loolu moom ngay sukkandiku ci zikr mooy di takkoo njàpp njàpp ndox la te ndox bu seddee day fay tàngoor moo tax dañuy wax ni seytaane day fuural xol gis nga boo jàppee fuur gi muy fuural xol day commencé di daj bokk na yi ci am solo nag te nit ñi sàgganee ko mooy wàññi wax ju bari wàññi lekk yu bari wàññi xool bu bari wàññi jaxasoo yu bari ñett yëf a ngi yoo xam ne yu garaaw la borom xam-xam yi dañuy wax ni doomu aadama su tëyee seytaane da koy jéem a dikkee ci buntu yi doomu aadama buy xool xool ba xool bari mooy lan loo romb ci mbedd mi xool ko te lu génn ci écran télé bi nga xool ko gis nga bu yàggee loola ngay xool day tàppe ci sa xool te ak bëgg fa bëgg yàlla waroon a nekk loolu da koy remplacer. moo tax gis nga ay image yu bari nii ay fu ñu la fekk yaa ngi lire ay journaux fu ñu la fekk yaa ngi seetaan télé li gën a garaaw ci yàq xoolangoog wax ju bari da ngay gis ci ñun ko xam dafa bari wax bari wax maanaam yàlla daf surtout nag yéen jigéen ñi te bari wax wallahi day ñaawal jigéen sax seetlu leen li ma gis nga jigéen bu rafetoon bu baree wax sax day ñaar di ñaaw day commencé ñaaw maanaam bari wax ci boppam moo baaxut ci nit bu yàggee wala da ngay soof nit ñi sax da ngay commencé soof gis nga nit dafa war a wax lu yem waaye koo xam ne fun la fekk yaa ngi wax yaa ngi wax lu am xorom nga wax lu amul xorom nga wax loolu baaxul ci doomu aadama loolu li ñuy tuddee muru amooy mbañum rus sax day commencé dañ ci yow te su boobaa di nga wax ba wax lu amut wala nga wax ba fent wala nga wax ba fen fent ak fen lan mooy seen différence da ngay déedéet fent mooy créer créer benn affaire nga xam loo xam ne yaa koy créer fekk benn xam nga fen sax fen la nit mën naa wax dara fenaa la ca waaye fent nag mooy yaay toog sa waay créer benn affaire boo xam ne ngir wax ko ngir yonent yàlla beneen rëbbam yàlla ñee ñeel na ki nga xam ne day wax di créer ay wax di fen ngir nit ñi nañ ko reetaan yàlla na yàlla rëbb kooku loolu moo lay wan ni comédien lu garaaw la yàlla na yàlla rëbb koo xam ne day créer ay wax di wax pour nit ñi di reetaan xoola ñi nga xam dañuy def ay comédie di fooy fooy même bu fekkee la ñuy fooyee doo alxuraan ak sunna sax su fekkee kuy fooy alxuraan ak sunna moom kooku mu yéefare la moom génn na ci lislaam saboota yàlla comme yonenteem noddu julli jumaa jàpp yooyu muuraay yooyu loolu ku koy saboote moom yéefar nga génn nga ci lislaam moom da ngay tuubaat mu des nag saboote loo xamante ni du lislaam loolu ku koy def bàkkaar bi ngay def rëbbam yàlla mi ngi tàbbi sa kaw loolu ak lee daanaka dañoo sore gis nga beneen bi ci des mooy wàññi lekk bu bari borom xam-xam dañuy wax ne doomu aadama buy suur fu mu toll xolam ni mu war a fuddee jëm ci yàlla du ko mën te effectivement wax na dëgg gis nga moo tax koor nit ki gaaw ci defar lool ba ci toll mooy di wéet léeg-léeg ak am solo wéet nag doomu aadama su ko dul def mi ngi def musiba su koy dëkkee def mi ngi def musiba loolu leer nit koo xam ni foo ko fekk mi ngi wéet wóorul yent yàlla beneen seytaane bu ñëwee du fàdd till ga nekk ca du fàdd bay wa ne ca biir bay day dem fekk bay ba beru mu fàdd ko wax na dëgg kon beru chaque jour wóorul yent bi daa fekk saxaaba yi ñuy ñuy ñuy yendu kenn ku nekk sondal kii dem tëdd ca garab gee ku nekk naa garab gi mag gii moo gën a féex yent bi waa seen tasaaroo gi mooy lan lii seytaane ko waral booloo leen ngeen dajaloo ci genn garab kon fun la fekk ngay weet loolu musiba la waaye nag fun la fekk yow am na ñoo xam ne ah kër gi xool waxuma benn fan doog bu waa kër gi yëpp damoon ngénte kenn newu fi mu tëj kër gi dem yendu ji fa mu wet mun munul wet benn fan benn heure déedéet léegi da ngay wéet ngay xalaat sa borom léeg-léeg nga wéet ngay jàng alquran léeg-léeg nga wéet ngay zikr ila axiri di ko def par tuuti tuuti tuuti pour mën a defar sa bopp waaye fu mu la fekk yaa ngi wéetalikoo nit ñi wéet gu mag gaa ngi ñëw muy biir bàmmeel boo ko tàmbul woon musiba dikkal la kon nag ci gàttal loolu ay njàngale la woon yoo xam ne ab junj la amaan na benn laa tëb xëy na bu ko borom bi doog a dogalee mën naa am suba ñu def ko mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy zikr bu mag bi ak ngëneel ya ca nekk la àlla suba xëy dañu mboros ko wala beneen yoon di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ci àddina ci àllaaxira wa sallallahu sallam ala muhammadin wa